ñu ne ma loo xam ci ku fase sa aawa ma ne ku fase sa aawa génne sa taaw barke nuyu na la waaye fa yow ko ñu ne loo xam ci góor benn jabar ma ne ko am benn jabar sàggane ko di nga xaaraane sam nawle te di nga yóbbante sam póot ñu ne jigéen buy sëy nu mu war a def ma ne sëy balaa am ngoraay jëkk ngoro nag ñeent la sa mbokkum ndey wala sa mbokkum baay dëkk ju yàgg ju la ci koom neex mbaa ku tër ay bokkam nga tës say bokk loo ca fekk ba ko ca loo ca dër nga muñ